leen ak jàmm ci xibaar yi nag dañ koy dooxee mbirum Ousmane Sonko ak ki nga xam si nag moom moo di euh, El Malick Ndiaye yëkkati ay kàddu nag jëmale ko nag ci peuple sénégalais wax na rek ginnaaw tànneef gi nga xam si ne rakkale euh, bi nga xam def nañ ko kii nii di Ousmane Sonko ak Bassirou Diomaye Faye mi nga xam si ne jàll nañ ko te Ousmane Sonko nag yàggoon kaa wax wax na rek euh, bu leen ma topp. topp leen li nga xam si ne moom moo di projet projet bi nga xam moom moo di projet Pastef te nekkul ki nga xam moo di Ousmane Sonko kese moom mii di El Malick Ndiaye di yëkkati ay kàddu wax na nag ñun daal xooluñu leen lu dul li nga xam si moo di projet bi projet bi rek moo ñu yitteel bàyyi leen rek ñu leen di divertir di leen wax rek candidat bi ñu tànn nii du candidat Ousmane Sonko bu leen découragé wu benn yoon na Ousmane Sonko bokkul rek day découragé wu noonu projet bi rek la te projet bi Ousmane Sonko la te incha allah 2024 Ousmane Sonko mooy toog ci boppum réew mi incha allah rabi moom mii di El Malick Ndiaye yëkkati eh, kàddu yooyu.